demi-finale demi-finale 120 kilos Ababacar Sarr Kédougou Ablaye Wilane Ndoye Thiès Ablaye Wilane Ndoye sunu càmmoñ Thiès Aboubacar Sarr ñaar Ablaye Wilane Ndoye wan ñu ginnaaw Libidor jàkkaarloog ñun Thiès Kédougou Libidor demi-finale Libidor Thiès. Ah, waaw waaw waaw waaw ay Seck ndaanaan xanaa laajte nga ma tey de Seck ndaanaan tey damaa toog rek sama yaram yi sumeeku fa ma toog mënu ma faa jóg. waaw for foro mel noonu. billaay Seck ndaanaan tey sama yaram dafa daw. ay Seck ndaanaan Libidor tey. Libidor Aboubacar Sarr Kédougou Aboubacar dem na. eh Libidor ko gën a compétir. waaye nag li waaye nag Seck ndaanaan Libidor a ngi bëre. dëgg la mbër mu mbër mu mag te mën a bëree. Mborom gan Aboubacar Sarr. waaw Aboubacar Sarr ngoog. jël na lu nekk nag li mu jël na lu nekk. jël na lu nekk Aboubacar Sarr. ñoom ñaar ñoo ko coow. demi-finale 120 kilos. ay waay Thiès kaay benn dëkk ñaari gar oh sama dëkk boobu fa la nam la jëm. ah c'est que ndaalaan sa dëkk ba. waaw billaay mat na faal si na Senghor. Pape Doumbia nga toog di xaar. waaw waaw sa directeur bu baax bi. préfet nga toog di xaar. waaw loolu de wér na ak gouverneur ak ñëpp. gouverneur nga xaar ak les quatre maires. Ah aywa xale yàlla na yóbbu ndam li. amiin waay amiin. waa Assane Fall le secrétaire permanent. waaw fi mu ne mënatul sa wax xool ko. mi ngi taxaw rek di baaxante rek. Libidor. Aboubacar Sarr ñoom ñaar. demi-finale lourd Libidor Aboubacar Sarr. catégorie 120 kilos. la ilaha illallah Aboubacar Sarr dem na dem na Libidor ngoobu na ko Libidor da ko ngoobu waa Aboubacar Sarr fam jaar loxo ba tubb loxo càmmoñ baa ko seene waaw da ko xam na ni Libidor dafa mën a fiil eh. dafa mën ñaar ñëpp oh oh nee na leen waaye lamb ji moo diis nag ci ñoom dëgg la ndax Libidor ñaaram dañoo finalu yeneen ñaara mi ñàkk mu war leen a ñetteel pour ñu finalu waaye de ordinateur a ngi koy ah, Malika a ngi koy xaar ah, fu gaay jëm ña nga co Aboubacar Sarr dem na tubb na ko tubb na ko Libidor bañ ba jeex Aboubacar Sarr tubb na ko bañ Libidor dàq na ko plaqué lali lali na ko Aboubacar Sarr da ko mbaar ci kaw ñoom ñaar ña nga ci teewaayu docteur Alioune Sarr ci teewaayu Manga 2 champion mag ba oh Mbour Libidor dem na Libidor Aboubacar Sarr catégorie 120 kilos mi-temps. ah Libidor mi-temps nañ fekk ndaanaan. mais drapeau chef de l'État seen temps dafa bëriwul. waaw waaw waaw waaw drapeau chef de l'État nag fekk ndaanaan na nag ñu leen temps bu bari. ndax bëri bi mu fiy gis gisoo ko fenn fii rek nga koy gis rek ndax. te yemul foofu amul jàpp ngemb. soo raamee ñibbi. bokk lu yi di fi dégg fi ñëw. koo fi dégg sekk ndaanaan. ku mënta bëre ci ndaanaan yi. indi leen ku ne représenté sa région. waaw loolu la ndax moo tax lambi ndaanaan ku dul ndaanaan doo fi egg si. Aboubacar Sarr li ca. maa la ñaar ñoo nga ca Fallou. Oh. ndam la Kédougou la jëm wala la jëm. arbitre la ni seet ñoom ñaar pare nga mu ne waaw soufflé na wala teel la ku ñëw ci pind bi nga yem. waaw ñaar ragal na ca géew ba. Assane Fall dem na toog. Maysa Ndiaye dem na toog. Mamadou Sakk dem na toog. Ah. Aboubacar Sarr biij na ko mu bañ. Ah, Libidor. Libidor bañ na. Eh, bu deful nag am avertissement. Ah. am na avertissement Libidor day am avertissement. day am woy deux sorties délibérées bu deful bu temps bi jeexam mu ñàkk. waaw waaye temps bi kon na ko jël na Libidor na ñëw bëre. sekk ndaanaan temps bi yàggul Libidor na bëre wala mu buux ko mu génn. maa ngi nuyu sa cameraman Sëñ Fallou. di sama waay di ku baax. kooku mooy borom Touba Mbakke. waaw naa nga dawloo ko si si bi ay ay 100 mètres. nee naa ko boo espérer léegi ma rey la. non nga yóbbu ko kamb yi nag yi kër Seye bi. dama koy ñëw ay 100 waaye damay topp saa yi ma gëstoo gis ko mu langu. ñoom ñaar ah Libidor na dem Libidor na dem bëre. wala mu buux ko mu génn moom avertissement comme moom. Libidor na bëre ndax li des si temps bi bariwul. temps bee jeex. yàpp avertissement Libidor dem na. Libidor dem na ragal naa combat bi jeexoo fii. indi na ko. Libidor indi ko. eh tolloo nanu ndaanaan la. le Libidor daanaan la. Libidor daanaan fexe na ba lu. fexe na ba lu jëlti ko. fexe na ba dellu si waat ci combat. waaw ndeysaan da koo oñ mu ñëw faxal ko. te bu bañoon a gën te mu tuuru. ñoom ñaar. Ababacar Sarr Libidor Dodo. ababakar sar Libidor. Ababacar Sarr nga koy faxat di ko pamti pamte. Libidor lank no. ñoom ñaar ñoo nga ñoom ñaar ñoo nga coo Libidor na buux mu dem demi-finale baa ngoog 120 kilos. fekk a sëfaat lamb ji joxaat ko beneen avertissement muy troisième avertissement. bu ko defee mu moom combat bi. mu mën a moom combat bi ndax combat bi fi mu dafa metti moom xam nga dafa compétir te dafa xam géew. waaw day ndaanaan nag. Libidor day ndaanaan. ñoo ngay buuxante ñoom ñaar. Ndakaaru xam nañ ko àll xam nañ ko. eh lutte lutte avec frappe bi sax xam nañ ko. ah ñëpp ko xam. boo ko laaj xam na Libidor moo de eh Aboubacar Sall jël na ko faxat na ko mu ñëw da ko bëgg buux mu génn bañ loolu eh xoolal kële xoolal arbitre bi naan li bi door xool ko signal signalé woon na ko gaaye ko sëgg rek xool ko xool ko arbitre ba xool arbitre ba eh, na final. Libidor day dem. Libidor day dem. est-ce que tolloo wuñu avertissement Seck Ndana. mu def fii rouge. ah Libidor rouge defee noonu rek mooy nan ko avertisse loolu lay bëgg a wax mooy génn na. eh gars koo sëgg waaye kon mu yàq combat de. ah waaw waaw. Sitor la nag. eh Sitor mais. Ah. Ah, eh, nar. Sitor lu mu nar Fallou jëlee ma Sitor arbitre bëre Sitor jëlal ma ko de ko bàyyi xel ci lamb ji la bokk te day jékki-jékki rek signalé lu xaw lu xaw may nañ leen temps ñetti minutes lañu war a bëriwaat fi mu ne lamb jee metti ndax ay luur lañ nag ay poids luur lañ te si 4 heures ba léegi sekk ndaanaan ñi ngi bëre dañoo daan morom ba toll fii. ndaysaan lamb ji na kon. waaye nañ jaajëfal Pape Doumbia le PDG précise jiri mu ñëw mu miskin mu ñëw ku aajo ñëw mu say aajo te du fay bor. Pape Doumbia gor la garmi arbitre bi la wax na génn seen diggante ñoom ñaar Libidor Aboubakary Sarr Libidor seen dammoñ Aboubakary Sarr seen ndajoor Kédougou ak Thiès ñoom ñaar ñoo ngi ko bi mooy troisième fois oh Libidor dem non Thiès tey dañ koy jël au sérieux xam nga dañoo Kolda ñàkk ah. dem Tamba mu metti ñu war koo leeral li mu door day borom jom daa bëgg a jeexal lamb ji ndax ay rakam dañoo finalu mu magal leen daa bëgg a finaalu ak ñoom. ay waay kon noonu nga ca ñoom ñaar eh, Babacar tubb na ko li door fa xam na mu ñëw li door fa xam na mu ñëw da ngay ñanta na ñoom ñaar. combat bi combat tactique la. boo moytuwul rek nañ ko piiloo. combat bi ah. combat expérience la. waaw ah, loolu de dëgg la. fi nii ku gën xam mbir mi rek mën ngaa nax sa morom. loolu de dem na daf na am cong faxat Aboubacar Sarr il est présent da koo gis jërën. dëgg la. xoolal ak carte d'accès yi. eh jox ñu sunu carte waay grand. eh seen dîner de gala bi Assane Fall kees gépp dañoo topp si ginnaawam mu ànd ak ñoom ñu ngi koy ñaanal yàlla ko ndam lu rëy. gannaaw boobu def na xale yëpp mbër Thiès kuy rek Assane Fall wutal na la licence. loolu dëgg la sekk naa di ma wutal licence ma ko gannaaw fu ma jëmal licence man. man bëriwu ma bàyyi ma reporté. bi licence bi dañ koy yóbbu si rek mu téye ko. Libidor dem na Libidor bala nga am lu xaw eh. avertissement bleu Fallou Fallou Fallou xoolal lii lu ah Libidor dem final Fallou kay oh. Libidor dem final Fallou Libidor dem final Fallou Libidor final non li merdona quoi merdona